mu génnee nii bon ñu ngi sant yàlla bu baax et puis ndax bégte parce que ñëw nañu suñu Sénégal pour euh, wane ko boo gisee ñu yàgg di wane wuñu ko woon mooy album bi dafa pare fekk concert yu bëri bëri bëri ba nga xamante ne occasion bi bii la bu ñu centre culturel yi invité ñu ñëw loolu la rek mais jàmm rek mais bon bi ci suwari mbër yi suñu papa bu ñu dem làmb daf ñu yóbbu bu ñu nekkee xale ba ñu xam ñoom Fodé du suba ñoom Falaye Baldé ñoom Doudou Bakassar xale yi donn na ñeen ba dab leen léegi am ñi goos yi ñëpp waaw ba raw leen sax parce que loolu mooy prendre le relais quoi donc yooyu la ñu wéyal wéyal nañu sax xaar Mbaye Madiaga jéem ni on a fait des clins d'œil à Pape ñu yàgg ñoon tëgg ñu ba ñoom ak Kanakor. qu'on parce que ils font partie de ceux qui waaw ak Malang Malang mooy Adama woow bu ñu nekkee xale tamit day ñëw kër ba kër benn gaana la bu wér. oui dafa riche parce que léegi touristes yi yëpp ñu ngi ni fii ay Mbour ay Saly Portugal ku ñu ne demal fa la ñu ne ko non bul dem foofu la bari xeex te ñun ñu ngi fa guddee bëccëg. amul xeex am na xeex am nay soubresaut dafa mélangé léegi ak banditisme ak lépp dafa bëri dafa bëri xale yi dañu ñu bëri dañu juddu ci guerre donc euh, xamuñu leneen la ñuy vivre et ñu ngi koy vivre mais nañu dimbali. boobu kooku je crois que dañuy jéem a bañ a yàkkamti parce que comme temps bi dafa gàtt ñun à cause de notre programme moo tax ñu ñëw def ñetti dates yi. mais après nag ñetti date yooyu on est en train de préparer euh, le plus dur waaw léegi lu tax ñu ñu jàllale yëf yi parce que tout simplement euh, dañu nekkoon ci tournée boo xamante ni foog ñu yeggali ko moo tax ñetti fan yi ñuy tëggoon euh, Dakar Saint-Louis ak euh, Mbour wone na ne colon yi bu ñu ñëwee ah seen colonisation am na amoon na tur ak amoon na fu mu yemoon parce que xam ngeen les les quatre communes xaw ma si quatre ou trois. c'est quatre communes ah. waaw parce qu'ils existaient bel et bien et nous on ne veut pas cracher dessus parce que ça a existé su wuloon bon voilà ba pare euh, lii di ko dàq parce que on est en de nous battre pour que mu sorti quoi. bon on ne peut pas dire exactement yan date la mais suñu delloo je crois que on aura besoin d'un d'un recul d'à six mois parce que six mois ñuy toog on doit aller terminer le reste des concerts d'ailleurs pour ñëw mettre en route celui du Sénégal ceux de l'Afrique on commençait on n'avait pas les moyens pour ça, on était obligé d'être des auto des comment on dit ay euh, autochtones la wala ñu koy waxatee. waaw parce que quand on commençait on n'avait pas les moyens d'aller s'inscrire à l'école et puis l'école waaw donc je disais que lu ñu tax a doon ndaw ci musique bi mooy bi ñu koy tàmbalee euh, euh, solo ñu woon xale ñu woon ci jàngi. jàng jàng musique bon léegi comme ñu ngi ciy dellu si ñu ngi koy jox ak am ak jox ko benn euh, om boo xamante ni si soobee yàlla foofu la ñuy jaar ak xale yi mais surtout ne leen musique du parax-parax du jokka ndënk ndënk ndënk rek ku nekk jël potam dugg non dafa am nu ñu koy bindee te nu ñu koy bindee mooy tax man ma yónnee la ko yow nga xool gis ko man mii wax yow mënuma ko de mais passé naa jàng te jàng kenn du ko passé. te bu ñu nekkoon xale tamit dañu doon déglu façon musique bu nekk. amoon na émission bu ma maa ngi fàttaliku bu ñu nekkoon xale fii ñu émission bi ñu ko doon ne mu bokk do toodo da ngay dëgg bital si fii nga dëgg jom yi adi dee ay musique bu nekk ngay déglu ñu ñu koy jàng di di ñafe di ci ñefe mais après ñu gëstu xool ne dañu am folklore dañu am musique su ma ne ma ñu ci jublu moo tax album yi yëpp suñu lakk yi dañuy woy di lakk Casamance lakki Sénégal entier. loolu la ñu wone tamit di ko def